Karawlak waa Sareya maa ngi leen di nuyu ci turu toutes les femmes du parti démocratique sénégalais di leen indil seen soutien ci taxaw jàppale gi nga xam ne yéen góor ñi ak jeunes yi ak mag ñi yéen a ngi ko jàppale jigéen ñi pour que le Sénégal fii mu toll suux ñu suqali ko delloo nit ñi ci seen jàmm dagg buumu jàmm yi dagg buum yi jaam yi ceeb bi yomb suukar si yomb dawlin ji yomb liggéey yomb ñi nga xam ne dañoo ñàkkoon yem ak ñi nga xam ne ñoom ñoo am ma di leen wax ne maa di mii nag maa ngi moom ñoo nekk assemblée nationale c'est dañuy wax ne toujours wax bu jógee dafa warta dal warta dal ci noppi koo xam ne dafa tëx dafa leen di kaasal dafay wax toujours ne Sareya moo war a gën a riche ci Sénégal mais Sareya moo gën a pauvre ci Sénégal benn rek li ma koy firndeele mooy bi ñuy ñëw vraiment yoon wi moom war nañ fee jaarale naka ba mu xam ba mu xam li xew fii parce que yoon wi metti na ma di leen wax nag ne yéen jigéen ñi yéen yéen ay xëy teel di dem ci tool yi di béy yéen yéenay dem ci tool yi di sàmm yéen yéen a yor njaboot gi jigéen moo nekk ci kër gi togg jigéen moo nekk ci kër gi éduqué doomam jigéen moo nekk ci bureau yi comme xale yi benn jigéen bëggul yor sa doom jàngal ko ba mu am ay diplôme nga yaakaar mu war laa noppal nga ko fu mu tourné na la yaay ana añ bi yaay ana mburu mi yaay ana ndékki li yaay damaa bëgg a sangu yaay may ma ma jënd tubéy benn jigéen bëgg ko